waa waa waa waa waa ministère de l'environnement waa ministère de l'urbanisme et construction euh, euh, ak aussi euh, waa élément yoo xam ne ministère de l'agriculture la ñu jógee notamment institut national pédologie ak waa waa ISRA ñu ngi yëngatu si ak waa voûte nubienne donc mooy benn ONG partenariat la ñu ngi yëngatu si nan la ñuy xoolee dëkkuwaay tabax bi tabax boo xamee ne dina ànd ak tàngaay bi nga xamee ne moom la ñu gën a dund boo xoolee muy gën a tàng surtout si gox yi tey tàng euh, boo xoolee facture climatisation bi muy gën a yokk du fii kese même Dakar ñun ñëpp xam nañu ne léegi boo amul sa ventilo wala sa climatisation doo mën a dëkk si yenn doo mën dugg si yenn néegi donc euh, technique bâtiment la buy permettre ñu ñu ñu ñu facilité euh, confort thermique ci biir bâtiment yi ñu ci mën a ñu mun a wàññi tàngaay bi tàngoor yi ci biir bâtiment bi technique boo xam ne la suñu maam yi yàgg nañ ci dund mais nag dañ ko war a xoolaat euh, def ko mu adapté par rapport ak euh, lu ñu wax modernité te loolu mun na nekk am na ay bâtiment comme lu ñu wax l'hôtel des Yvelines am na ay ay case de santé am na ay école yoo xam ne ñu ngi koy construire ci technique boobu donc dina permettre xale yi nekk dans des bonnes conditions san nekk di taal ay climatisation wala nekk di am ay facture euh, énergie kii nu mu tudd facture électricité yu yu yu ngande donc yooyu tamit ay ay éléments à prendre en compte la beneen aspect bi aussi mooy kon euh, euh, noo ko waxee di gën di tàng donc xeex mbirum changement climatique ak impact changement climatique si dëkkuwaay yi mais aussi yokk Euh, euh, gën a yokk dundal suuf si si zone bi euh, boo xoolee dëkk dëkku béy la dëkku sàmm la donc activités yi nga xam ne dañoo ñu permettre vraiment ñu jàppale communauté yi si seen ñaari activités yooyu muy sàmm ak ak béy dinañ ko def ak ay pratiques GDT dundal suuf si vraiment pour permettre que agriculture bi gën a gën a gën a gën a gën dem ci kanam aussi wàññi ndox bi nga xam ne dañ koy euh, dafay am si zone bi parce que plus muy tàng pis ndox bi di naaw donc pratique GDT yooyu dafa nekk ay forme de pratique yoo xam ne projet bi na ko jàppale mu gën a law si zone bi